bu bu bu bu Amy Ndiaye ñibbi bi moo moo gën a grave foofu parce que ñu ngi wax ci affaire diine mi ngi taxaw di wax ki nga xamante ne ni moo di sëñ Moustapha si alors que boo seetloo sax fan yi ñi génn problème mu ngañ daan démb bi daanaka boo ko différencier doo ko doo doo ci doo ci dindi lu bëri parce que lépp ci diine la te yaa ngi gis ni depuis mu wax loolu ñoom ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci pouvoir bi ñu ngi commencé di wax ni gars yi dañu bëgg xeex diine wala dañu bëgg indi beneen diine bu bees ban différence ngay def. Euh, ci am ñaari dañuy xeex diine gi ak ñoom seen ji nga diine ji kenn moomu ko diine yàlla la mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. diine ji kenn moomu ko léegi li am te mooy ku ne ci ñun dafa am ay wasila am ñu mu gëm am ñu mu yaakaar ji nga yonent bi sunu sang rasulillah da daan wax Omar na ko wax ji nañ ko seetaat ñu ne lu tax Omar na ko wax ji bu dee sa waxu bopp lu ñu war a waxtaanee la mm-hmm. waaye bu dee lu jógee ci yàlla ànd nañ ci nagam suñu sang rasulillah lan sañoon ne boo waxee lii ànduñu ci asama ak keneen léegi nag gàgganti sa kilifa ci mbedd loolu kenn du ko def dama lay jox euh, benn exemple damay dellusiwaat ci diine ji ba léegi. Mm-hmm. en quatre vingt dix dafa am benn sëriñ boo xam ne mi ngi woon fii ci senegal sëriñ boo xam ne day politique hmm? euh, ku nit ñi miin la ku nit ñi xam ku neex a déglu ku mën a waxtaan. mu demoon ci benn télévision française def fa ab émission mu ne fii ak ay at bu ñu deful nànk sëriñ si bu nu jéemul def effort seen diggante ak taalibe yi ci taxaw gi leen war a taxaw ak ñoom seen ak mondialisation bi ñëw dinañ dem ba sëriñ bu ci góorgóorlu li ëpp say taalibe di nga leen ñàkk te boo leen ñàkkul mun na am ni sax doo leen nekkati sur la même longueur d'onde maanaam boo waxee lii ñu wax lii. boo waxee lu ñu àndu dañuy taxu ne ànduñu parce que loolu mondialisation moo koy indi sëriñ boobu nag c'est un marabout intellectuel ba tey jii mi ngi ci géopolitique bi déggatuñ ko lu bari. pour walla ni rek am na ci ñoo xam ne lii am ni tey bettu leen mais am na tey jii ñoo xam ne da leen bett te man nag li ma jàpp ne moo ko indi mooy jamono moo neexatul parce que bi jamono di neex nit ki day dem liggéey rek yëkkat àddiya jox sëriñam. mais léegi nit ñi ci yeewu gi ñu yeewu ak ni jamono méttee pour man problème xaalis dafa da ci joué lu bari décalage boobu problème mu xaalis da ciy joué lu bari léegi bu dee sëñ Moustapha mm-hmm. ak sëñ Modou Kara xamul tax ma leen di ñoom. Mm-hmm. ak sëñ Mansour Sy Djamil. Mm-hmm. mooy ñoom danoo ñëw taxaw ñu ne dañuy politique ñoom maa jigéen. ñoom danoo ñëw taxaw ñu ne ñoom dañuy politique nangoo far nangoo féete xaw man kan moo ma def problème. waaw kiy jë mbubboo diine ji. Mm-hmm. na farul fenn te far pour man kooku moo indi problème bi. Mm-hmm. farul fenn te far te teg ci li ñuy waxal gars yi Sonko yi naan dina ji fii dina ji fii dina ji fii. Mm-hmm. ab sëriñ fii bi fi Sonko mujjee Touba nii ab Sonko ab sëriñ dal na fi Sonko. mati trois pommes lan la ko yàqul ci internet mati trois pommes kan la faral ak ñan la faral. <laughs> kenn xamu ko. tey jii Thérèse Faye Diouf. <laughs> la moo fi doon gàgganti sëriñ si yàggul. Amin Ndiaye ñii bi. moo ci mujj nga ñëw ci Rama Maki. Mm. ngay lim di lim di lim ba du jeex. Mm. Cheikh Béthio Thioune kan moo ko tëjoon ci kaso bi. président Sall la la wax. Hmm? gaa yee ko te tey jii Macky Sall tey jii ku waroon na fonk Serigne si la jàppale leen. sëñ mm. sëñ Abdou Mbacke Bara Dolly kan moo ko yóbbu ci kaso bi. président Sall sëñ Assane Mbacke kan moo ko yóbbu ci kaso bi. maanaam bu mu doon tey jii xool ban président mu ëpp ci këru diine yi ñu mu yóbbu kaso Macky Sall la. Mm-hmm. ci këru diine yi senegal ñu mu yóbbu kaso président Macky Sall la léegi pour man lan moo waral ñu mën a nangul Macky Sall lu ñu daan bañal Abdoulaye Wade pourtant Abdoulaye Wade moo gënoon ci këru diine yi Abdoulaye Wade mën na waat ni taalibe Sëñ Tuubaa la mag ku fonkoon sëriñu diine yi la ndaxte ba ko sëñ Baara Mbàkke taxawee. Falilu ah, waaw nag wax ko ci Macky Sall dakaa baal ba diggante ma Idrissa Seck seen Abdou Aziz Al Amin ban rôle la ci jéewul digganteem ak diw ak diw diw diw diw bay wax tey ba mu li yu bari tey boo doon lii yu bari doo ci mën a dugg mais Abdoulaye Wade ku déggaloon Serigne si la ndaxte bari na ci yu mu naroon. Mm-hmm. mais Serigne si daan ko ñaan mu bàyyi kii Karim Wade nekkul ci kaso bi ba ba Serigne Abdou Aziz Al Amin di wax naan kii dafa dëgër bopp. dan lay woo mënuñu laa jot kan la doon waxal du Macky Sall <laughs> ah ñaata yoon lañ ko ñaanul ci mbiri xalifa uh-huh. ñaata yoon lañ ko ñaanul ci mbiri Karim lan la Macky defal Serigne si. balan ko war a wax waxuñu ko man loolu problème na ci man te pour man defalu leen lu tee ñàkk ñu jàkkaarloog moom na ko mhm. bul yàq réew mi bul tas réew mi mhm. te troisième mandat bii dañ ko fi tere d'accord Omar teg ci nag justice bi ah. ngelawaay ah. réew mu tàkk ci àddina ma jigéen justice mooy li ko tàkk mhm. justice mooy li ko taal di nga avocats yi fulla gi ñu am ba ordre des avocats korog ci diggante Mame Mbaye Niang ak Senghor ta ak euh, Sonko taxaw na leen nan pousse dossier bi pour man magistrat yi union des magistrats du Sénégal bi ko Téliko di jiite de xàmme woon nañ union des magistrats du Sénégal waaye bu fa Téliko jugee ba léegi tey ji xàmmeetuñu ci ni magistrat léegi nag dafa am benn baat bu ay kilifa doon wax maa jigéen. waaw ñu ne ab magistrat bu jàkkaarloog ab dossier balaa muy xalaat yàlla carrière lay xalaat balaa mi xalaat yàlla. carrière am lay xalaat te nag daf ci am loo xam ne nit ku ne war na koy sàmm. te mm. ñëwagul. Mm. tey ji bi tudd tey ji des fois Sénégal man damay tiit. ba tey jii bu lay wax justice Kéba Mbaye la lay tuddal léegi diggante Kéba Mbaye ak tey jii kon keneen amu fi ku tax ñu mën a fàtte Kéba Mbaye mm-hmm. maanaam sunu réew mi mm. day gën di dem di gën di dellu ginnaaw ci domaine yëpp rawatina ci wàllu justice mm-hmm. alors que nag ñoom ñu doon justice di àtte tey ji bis dina ñëw ñu àtte leen mais beneen bi ci topp mooy ki ana Cheikh Tidiane Diakhaté mi daganaloon candidature bu président Macky Sall bu Abdoulaye Wade mm. juge na fi bu neexee da nga fiy jóge bu naqaree da nga fiy jóge mm. ji nga Macky Sall bi muy def prestation de serment en deux mille dix neuf bi ñu paree ci prestation de serment bi ka doon def euh, prestation bi taxaw bu ma juumul président conseil constitutionnel wala vice président je ne sais plus. Hmm. am na ñu ne bi mu paree oto Marème Faye Sall la dugg te fa mu taxawoon ngir Macky Sall def prestation de serment wax na ba wax ci Marème Faye Sall alors que Marème Faye faluñu ko war fa woon tudd bu demee ba ay magistrat mën a wàccee seen bopp ci niveau boobu. Hmm. alal rek mooy li ko jar te ak seen carrière alors que carrière bi bu neexee da ngay dee bu naqadee da ngay dee nan sóoraale ni ëllëg am na